salaamaaleykum bok internet dalen daleen ak jamu Sen Sports 221 ki nga xamne moy mooy Jude Bellingham am na blessure bo xamne dina ko génnee ñaar japp ñetti semaine gannaaw gañu gañu bi mu jëlone ci match bi Real Madrid don am seen ak Girona ni ki demb amna sax yene taskatu xibaar yu gëna di xam ne quatre sax man nako yegg moom Jude Bellingham bi nga xamantene mo nek meilleur buteur ci équipe boobale de Real Madrid mu war tok ñetti semaine yu mu footballul japp naa ne loolu dina metti lol ci équipe boobale de Real wala ñu gis na nak ñoom waa Real Madrid dañoo war a jouer ci li nga xam ne mooy Ligue des Champions seen diggante ak RB Leipzig loolu mu ngi war a xew fileeg ñaari fan ci suñu kanam wala ñetti fan xam nga Ligue des Champions dafay dellu siwaat Bellingham du ca bokk yeneen jongante ye yee ca topp it du ca bokk ñu ngi séntu daal ci match retour ya amaana ci lay war a mën a dellu siwaat bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi Filippo Inzaghi bi doon tàggat Salernitana bu Boulaye moom daal dinañu koy dàq bu ko nag moom ci saison bii rek lañ ko daal di jël voilà waaye nag yàggu fa jamono bi daal nañu koy takkal la mu am ndax résultat yu bon yi nga xam ne mu ngi koy tegle bu yàggul rek xam ngeen ne fan yi la ci la ko Empoli dal di dóor ci match bi nga xam ne ki nga xam ne mooy Mbaye Niang sax buteur la passeur décisif ci jogante googule Boulaye Dia amaloon retouram waaye ki nga xam ne mooy Filippo Inzaghi kon nekkatul ki nga xam ne mooy tàggat équipe boobule di Salernitana ki ñuy wax Fabio Liverani moo ko dal di remplacer foofule bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi ñëw bi nga xam ne moom joueur Arsenal la kayiti xibaar yi xam la nañu ne am na licence entraîneur bu UEFA B gannaaw bi nga xamee ne kat ba mu doon def li nga xam ne mooy formation bi voilà fi ne nii nag ne nañu mën na tàggat li nga xam ne mooy ay xale jàpp li nga xam ne mooy 14 cent ba sax 16 ans mën na leen tàggat mën na nekk entraîneur jiit ab équipe bu U16 wala U14 voilà mën na nekk li nga xam ne mooy adjoint ci li nga xam ne mooy équipe première loolu yëpp lu mën a nekk la waaye mënagul nekk nag koo xam ne da nga jiite dafay jiite équipe première maanaam li nga xam ne mooy doole bi mu am yeggagul foofu waaye mën na nekk adjoint mën na tàggatam li nga xam ne mooy e U14 wala boog U16 bu ñu sukkandiku ci taskatu xibaar yi moom nag mu ngi football ba léegi bàyyeegul fan yi sax kayiti xibaar yaa ngi xam ne ne ñi di waa Arsenal ñu ngi xalaat yokk li nga xamante ne mooy contrat a prolongé ko ndax xam ngeen contrat bi mu signé woon foofu la ci Arsenal guddul voilà waaye nag li nga xam ne mooy xarañte ga muy wane ca terrain ba tax nañu bëgg a prolongé li nga xam ne mooy ki nga xam ne nag mooy Victor Roque moom taskati xibaar yi xam la nañu ne kat ndorteel gi mu am foofu la ca Barcelone wane na ne kat moom nar na fay defi jaloore ndax kat bu ñu xoolee ci Neymar bi nga xam ne moom kat ñëwoon na fa ca atum 2011 Neymar moomu la dey jàpp nañu ne jaloor yi nga xam ne jot na ko def ca Barcelone ndorteel gi nga xam ne Victor Roque am na ko moo gën nga mu amoon ndax juróomi match yi nga xam ne fi mu ne football ko ak ñi di waa Barça mooy Victor Roque ci ñaari bal Neymar nag bi mu amee lu toll ci juróomi match ak FC Barcelone benn bit la marqué woon ak benn passe décisif lii nag dafay wane ne gone gi xarañte gi mu am ak ni mu tàmbalee kat wane na ne kat ëllëg mën na wane lu rëy foofu la ci équipe boobu di FC Barcelone te nag ku Barça am ci moom yaakaar ndax xale bu tuuti la waaye tam gis nañu xarañte gi nga xam ne wane na ko foofu la ci championnat bu Brésil balaa muy ñëw foofu la ki nga xam ne nag mooy Bukayo Saka jamono bi mooy jour Arsenal bi gën a doon xale bu marqué lu toll ci juróom fukki bal ci 45 ans ne nañu jot a marqué ay bit dippi ñeent fukki at di Arsenal ñi nga xam ne jot nañu yegg góorgóorlu ba marqué lu toll ci juróom fukki bal ki nga xam ne mooy Bukayo Saka moo ci gën a doon xale loolu nag mu ngi xew tey jile ci match bi nga xam ne ñu ngi koy am seen diggante ak West Ham ci la marqué li nga xamante mooy son cinquantième but loolu nag nekk lu am solo équipe boobu la nag di Arsenal mu ngi bëgg a rey équipe boobu di West Ham United jogante goo amaat nañ ci dellusiwaat en li nga xam ne mooy biti moom tegaloo na ndax kat ci premier mi-temps bi mën nañu wax ne ci 6 minutes rek dal nañ ci marqué lu toll ci ñetti bal 41eem ci lañ marqué seen deuxième but 44eem ñu dugalaat beneen ba ne ba ci 46eem maanaam ci traditionnel bi ci premier Eliman Ndiaye mom jamono bi kayti xibar bi di son nek fofu la ci Angleterre dafa xam ne kat ñi di wa euh, Crystal Palace dañu bëgg xoti sen tank tànk ngir dal di koy signé mom nak mo ngi fofu la nga xam ne mooy Olympique Marseille voilà mom nak bu ñu baye xel ba fi ñuy waxe lañu ko gisee woon ca Championship ba ak Sheffield United mom mënagu ko wone ak équipe bobu nga xamanteni voilà moy ñi di wa Marseille tax na ba kat ñoom bëgg nañ ko delluwaat ci Angleterre Crystal Palace nag ñoom gi waaye nag ki nga xam ne mooy Iliman Ndiaye dafa tànnoon voilà dal di dem foofu la ci Olympique Marseille bi nga xam ne kat ba muy xale dafa nekkoon dafa bokkoon ci géntam ngir bés mu delluwaat ci équipe boobule waaye daal gis nañu ne ñi di waa Crystal Palace ne nañu dey li nga xamante ne mooy transfert yi ñu dëkk mën nga xam ne fi léegi weer yu néew la rek dinañu def lépp lu ñu mën ak lu ñu mënal ba dellusiwaat ki nga xam ne mooy Iliman Ndiaye ci championnat boob bu ñuy sukkandikoo ci taskatu xibaar yi di son